Gajah futeh, gajah futeh sama gai. Bon malam Mr. Sheikh. Manyo encore une fois. Bëgg def ben vidéo ci Gilles Balde Junior. Yalla nako yalla yeeram te yéxañu. Numéro 1, numéro 1, numéro 1. Numéro 1, numéro 1, number 1, wali number 1. Moy mbeur bi génn aduna. Waye dafa am luma jot um, euh jang. Euh, ci li li ko rey loo xam ne daf ma jaaxal ndax dañ ne dopage dopage moo ko rey bi maanaa da doon jël ay doom doom yoo xam ne dalay jox yaram dalay jox jëm loolu moo ko moo ko rey léegi comme ni nga ko waxee xale bu ndaw la woon dëkk Pikine wax dëgg ñu ngi koy ñaal yàlla na ko yàlla yërëm ñëw ñu fi nag pour euh, ŋàññi ko

maanaam xotti tànk yi dindi jàngoro bi jàngoro bi moom moo waroon demal boppam balaa ñu mën a xotti tànk yi ñaari at dégg naa Jules de junior feebar bi daaneel ko mbër mu génn soq bu soq génn na di ci wax nee ñëpp dañ ko seetaan ñëpp ko seetaan waaw dégg naa daal ku ñu wax na Arona Dia na Dia waaw ñëpp xam nañ ko kooku moo ko joto yóbbu Tunisie mais foofu ba mu demee Tunisie ba mu demee ci docteur yi dañ ne duñ la mën a faj tant que doom yi demuñu euh, reesaluñ seen bopp waaw balaa ñu mën a xotti kon moom li mu daan jël dafa dafa doy waar lorop mais li ma ci gën a jaaxal ci wax ji li tax ma ne dama ciy def vidéo mooy ne Sékou jaar ci boppam nee na Pikine bi mu dëkk am na yeneen ñaari soxna ay maire yu ko woo di ko wax dimbaliñu ñun tamit suñu doom li dal Jules Balde Junior moo ko dal kon dopage bi dafa doon loo xam ne dafa nekk ci làmb bi ñu koy seetaan mbër yi xaalis jaral leen lu nekk bëgg am doole jaral leen lu nekk bëgg am ay conda combat jaral leen lu nekk bu ñu demee ba mbër bu mel ne guy gi moom ci boppam ay jamono génnoon na mu mu nangu mu ne daka daan naan waaw kon guy gi ñu ngi koy gërëm ci côté boobu waaye lii li tax ma ciy def vidéo rek mooy dama bëgg mbër yi di ci wax mel na ay Balla Gaye su ma jógee foofu ma wax tamit ci dëj dëj dëj bi gis nañ ne ci Pikine yëpp a génn Pikine yëpp génn loolu dalay won ne kii du woon mbër bu ndaw waaw man seetaan naa benn combat bu bu muy bëree dafa ne est-ce que du combat bu mujj bu muy bëree ak brise de mer te loolu 2018 rek la mu daan brise de mer jël bu rëy waaye boo koy seetaan ci combat boobu ku la ne woon kii dina bu jugee fii dina feebar doo ko gëm waaye dëj ba li ma ci gis ci nit moo ma jaaxal lool lool lool lool loolu nag rafet na parce que dañuy wane ne kii kii moom wax dëgg yàgg na euh, am na ay supporters te mbër la boo xam ne Pikine bëgg nañ gis nañ fa Ama Baldé gis nañ fa Balla Gaye gis nañ fa Siteu ak ñeneen waaye man li may li may ñaawlu rek mooy damaa gis ne si armeel ya ñu bëri solu ñu ay masque ñu bëri solu ñu ay masque te man corona bi tiital na ma trop trop bu ñu gisee Balla Gaye nekk ci otoom ñu koy laaj journaliste di ko laaj solo ñu mas bala ngay solo mas si te tok ci auto ñu koy laaj si te solo mas ah bala ngay solo mas ama bala gis na mu tok ci sol mas waye ba ñu ñëw jox ko loxo momit dafa nuyo ki la jox loxo ama balde xamoo ndax dafa am corona xamoo ndax amu corona ñoo ngay jël sal loxo di ko jox ba pare mas bi yang ko tak noon rek solo ko solo ko sax xam nga yeen ñi nekk ay celebrity yeen mëna joxe bon exemple mais da ngay gis plateau télévision yi tamit yenn yenn journalistes yi wala yenn reporters yi du ñu sax sol masque waaye li ma gis si dëj ba ñuy yuuxu di jàng ay xasaar loolu baax na waaye bu leen fàtte ne ñii di yuuxu di jàng ay xasaar tuflit bi day génn tuflit boobu di génn moom la ñuy wax aérosol aérosol yooyu noonu nag leen feebar bi di di lawee c'est vrai que xale yu yu bëri ñoom dañoo jàpp ne rek feebar bi du leen rey waaye buleen leen ne feebar bi bu leen reyul yéen tamit mën na sax bañ a génn ci waaye boo demee seen mën ngeen ko wàll seen wala ngeen wàll ko seen maam wala ngeen wàll ko koo xam ne dafa am jabet wala dafa am hypertension dee yi ñu ngi yokk Sénégal te day gën a yokk maara day taal ndax tey rek gisaat naa yeneen ñeenti nit ñi ne faatu na bis bu nekk téeméer ak lu topp dina am ci corona yu bees état Amérique bi cas yi dafa gën a yokk ci moins de une semaine même pas juróom-ñaari fan am nañ fi deux cent mille cas yu bees deux cent mille ñeent fukki junni nit yu am corona ci état yi xam ne dañ leen waxoon moytu leen dellu sol masque ñu bañ sol masque ay ay ay Floride rek ay ay ay euh, North Carolina ay Georgie ay Arizona Texas foofu dafa yokk kon nag man daal foofu laay waxee di wax ne mbër yi nañu xoolaat seen bopp ci dopage bi waaye tamit sénégalais yi nañu def ndànk ci euh, ci corona waaw